operation bi nak ñong koy tambali juroom ñaari fan ci wéru octobre diko ko ba légui mu ngi am nak digënté jon ji bala seen jéy ak masaran yépp nekk ci ñox si njaam bi nak dinañ ñong koy amal ñu jublu nak fexé ba ñi nga xam nak ñu ay woy daw lakku lañu ñu mëna ñibi ci xel mu dal ci seen diwan yi lé operation bi armée bi ma ngi xam ni liko taxon taxoon moy fexé ba yak lepp li nga xam ni ay tolu yamba lañu waye teg loxo ñi nga xam ni ñoo di yi liggé ci gox yooyu lé ci jéxital ba armée bi yakati na lu toll ci juróom fukki hectare yamba té ñu xayma ko ci contre valeur bo xamné ne na ñaari milliards suñu copar opération bi nak ñi nga xam ñoko amal ñoy bataillon de commando responsable secteur bi lé ñu ànd ceeg élément bataillon de reconnaissance et d'appui bu 25e compagnie du combat de génie armée nak néne na fas naa yéene wéyal taxawaay bi nga xamné amna ko fexé ba yak lépp li nga xamné tolu yamba la ngir mëna jëlé fi yakati bi nga xam da fay faral diko jur ci askan wi. Generation FM, the best radio.